yaa ngi taxaw yaakaar naa ni Sitor Ndour mooy arbitré combat bi ñu ngi noonu ñoom ñaar ci digg géew bi. dañu xam ne ñoo bokk ndey ak baay rek. drapeau Lat Diop ministre sport 21 heures 31 minutes. Tapha Tine à droite Eumeu Sène à gauche. Sitor di wax li lamb nangu ak li lamb bañ. ah waay lamb ji waay. waaye Lamine. xel ni ñu bokk ndey ak baay. c'est l'espoir qui gagne c'est la lutte qui gagne. c'est le Sénégal qui gagne c'est le Sénégal qui gagne. si doole ngi noonu di wax ak ñoom ndeysaan. ndeysaan. émotif et cardiaque abstenez-vous. oh vous prenez du sucre. oh les battements cardiaques s'accélèrent. ceux qui ont des palpitations son souffle. Pikine retient son souffle. wàllum teen nag ku ñëw ca Pind ba ngay yem. le pro le professeur Ousseynou Diop directeur du Crous. Sine Saloum vous dit bonsoir Malick Thiandoum. bonsoir au Sénégal. bonsoir le monde entier. ndeysaan image yooyu image yaa ngi noonu ngeen koy seetaan ci kaw. dañ leen di présenter drapeau Lat Diop. Sitor Ndour mooy arbitre combat bi. des moments de pression. des moments d'émotion. Ah Eumeu Sène concentré. très le visage grave. la ilaha illallah. Tapha Tine également. oh. le visage grave. ay Malick ana ñi la doon gunge. kenn du ñëw. Malick ana Serigne si la ñaanal. kenn du ñëw. Malick ana ñi la doon kenn du ñëw. Malick ana say mbokk. kenn du ñëw. Malick ana say am di jàmm. ñëpp a ngi toog. moo tax sport individuel la Malick Thiam. ku nekk li nga indi rek yal na yal na commencé jël commencé yal na egg ci alhamdulilahi rabil alamin. amiin yaa rabil alamin alaaji lamin. Oh. présenté nañu ambassade. borom tay singa. borom dof du Tapha Tine le géant du Baol ci noonu moo des présenté ko ndeysaan arbitre ngi noonu di nuyu waa kër Cheikh Mouhamed Baye novembre 2023 Eumeu Sène Tapha Tine drapeau Lat Diop ministre des sports. ñoom ñaar a ngi noonu di damantay baaraam Malick Thiandoum réduire na distance. il faut vingt huit heures trente quatre minutes. Eumeu Sène a ngi na teg Tapha Tine a ngi na teg. dañu siffler rek Eumeu Sène dox ci kawam wàññi réduire distance. pour loolu moo jaadu parce que Eumeu Sène combat rapproché la war a def. day xaar loxo bu juwaloo ak moom mais Tapha a ngi na teg Tapha Tine a ngi ndax Eumeu Sène day dem ndax dafa day dem Alaaji Cerno Njaay oh Lamine nag kooku ñoom ñoo xam waaye nii ñuy def ci jàppante ay loxo ko gis nga wàcceeku nañ Tapha Tine jokkaas Eumeu Sène jiital tànk bu ndeyjoor xeex nañ Tapha jiital tànk bu càmmoñ Eumeu di door Eumeu di door xeex nañ xeex nañ Tapha xeex nañ door na ko Eumeu door na ko mu ko jël door na ko. mu jël na ko laa la la laa la la door bu rëb. ama seen door na ko bu rëb. ama ne woon na ko kaay ñu xeex. yee Tafatin blessé na Tafatin dem na Ardo. oh Tafatin blessé na. ama seen duma na ko door bu sëbi ama seen duma na ko. waaw ama seen duma na ko. waxoon na ko waxoon na ko xool ci signature contrat ba ne ko dinaa la ko ne mënoo xeex. Malick bu ko neexee dañu xeex bàyyi bërëb moo tax tey dafa ñëw dugg ci jàngam pénétré ko dóor ko bu rëb mais il était semi KO yaakaar naa ni Eumeu Sène mu waxoon ci signature contrat bi def na ko daf ko ne woon nañ bàyyi bërëb bi ñu xeex xeex nañu Eumeu Sène yóbbu na Tapha Tine nga xam ni moom mooy Ardo bi kaa ji ñëwee wax ak moom ci wàllu daf ko ne rapproché ko duggoon ci garde bi agressé gaaj na yóbbu na ko ànd. li indi rëpp bi du tranchant gauche dafa dal loo foog mu kor mu tëgg ko ko door koy betti tëggaat koy betti indi ko mu rëpp. Malick mën nañu xoolaat ralenti bi s'il vous plaît la réalisation ralenti la réalisation. yo. Obasé a touché. Ah a touché. Malick on revoit ça. voilà c' est cette hypercute. ah oui hypercute bi la hypercute bi la hypercute bi la. ah hypercute bi la Lamine lu ma la ah sukkee dafa buufaat dafa jóg moom jéem a wut lu mu jàpp. ah oui fekk ko dara pivoté du juwaat loo du juwaat loo mag jàll na ko sax yóbbu ko mu yokk boppam ba léegi Tafatine xoola kër Tafatine xoola bi merci la TFM mais dafa ndànk Lamine Tafatine ma ne xoolal waa kër Tafatine di ñuy seetaane combat bi gis naa moo tax ma ne la bu mënu day ñàkk dañ bokkal tuur ko mu yokk boppam dem Malick Malick on revoit ça xoolaatul le fatal de Eumeu Sène ye gauche gauche mu kor hypercute droite hypercute beneen dalul aa dal a way dal na a ah, way dal dafa door Eumeu laaw boobu bu daloon mu jeex ko jël mu mbaar ko Tapha Tine nga ca ardo ba tey parce que ko éliminé yo dafa dal dafa dolliwaat. bu taxawul woon daanu na bu yàgg. waaw ah bu taxawul woon daanu na bu entraîné wul woon daanu na bu jàppul woon rek ñàkk. waaw ah dafa sukk mais il est resté lucide. waaw ah très lucide. xoolal kàl. nga ñëw jiwaat loo. nga ni Tafa ñëwee. nga ni mu yokke boppam. tàggoo rek kër Oma Sène Malick Thiam xoolal kër Oma Sène. ni ñuy seetaanee combat bi. quelle pression. ndeysaan war nañ leen kër Ama war nañ leen. arbitre bi woo na leen nga continué parti. Eumeu Sène Tapha Tine. ñoom ñaar ñu ngi de Eumeu bien sûr moo door moo yóbbu ardo moo rëppuloo Tapha Tine. on va voir la riposte de Tapha Tine. on on verra la riposte de Tapha Tine. ñoom ñaar ñu ngi leen doo. drapeau Lat Diop ministre sport. arène nationale. dina ëndiwaat Albourakh Events moo ko tëgg Malick Thiam. prochain round bi dina ñëwaat. xaat foo faral dox di ñëw delloo fa sa loolu la ama seen bëgg ndax mbër fu la door nga gaañu fa la koy delloo dooroo waat mais tànk yaa ngi dox di ñëw dafay am dafa dafa jokkaas dafa door na léegi ama seen a ngi na teg saa yu ëpp mbédee dina ko door proche loin ah xeex nañu bakkanu tafa bi mooy naaj tafa door na door na waaye dalu ama dafa fente ama ko esquiver ba fente

ñoom ñaar a noonu. am nañu mérite ñoom ñaar. lamb yi yemee sax neex. ils ont mérité. l'avant-combat avait présagé de ce qui va se passer. ah oui ah oui. il y a eu de la bagarre il y a eu du sang. et les deux lutteurs. sont encore dans l'enceinte. balancement de bras et quelques coups. mais yow est ne léegi Ama Sène daf ko bëgg a yóbbu Aliou. door na ko door Omar door na door na ko door na ko ñu ngi xaar jël na tànk bi jël na tànk bi nelaw lu xew lu xew. il a lu xew dañuy dem faar. non amul. dañuy dem faar faar. mais lii leer na. dañuy faar. dañuy dem faar. Eumeu Sène battu comme un lion. ah oui. Tapha Tine a résisté. ah oui. à la bagarre. ah oui. Tapha Tine. ah ku yi mu jël yëpp. ku yi mu jël. mais xeex bu tar. c'est bien entraîné. Eumeu bi nga déclaré xeex. dawal xañu ko ba léegi. mais Malick ñii dañu dem faar. mais bu répondre sa kaw Lamine day métti. c'est juste pour être sûr. waaw bu répondre sa kaw day metti xeex nga ak moom ba pare dafa recul observé ko. Sitor ñëw na. Sitor ñëw na ku daan ku daan ku daan. nee nañ faar. arbitre yaa ngi concerté wu. arbitre nee dem na faar. Tapha Tine daan na Eumeu Sène. Tapha Tine daan na Eumeu Sène. Tapha Tine daan na Eumeu Sène. cinquième victoire d'affilée. bu Bawol. Ah, rien ne pourra l'arrêter. Tafa a oui, transpiré. Oui. Rien ne pourra l'arrêter. Tafa a été Tafa a été semi-KO. Rien ne pourra l'arrêter. Replay, on l'a combattu. Au revoir. Yeah, de contour. Gauche. Contour. Gauche. On va s'être quoi d'or. Hypercut. Tafa a été corps. Tafa a failli. Ah oui. Ah oui, na tànk bi nelawti. Tapha daf ko koo xañ. Tapha mbaar ko. non il a dépensé. ah oui ah oui jàpp ci. ah oui ñaari pegg gën ah oui ah oui. ci ñaari pegg gën bi. Ah nga ëmmat seen da ah, doon bëri. même Tapha mi ngi doon sulli wax yi sax waaye so Amba mi ngi doon sulli wax yi waaye so. xoolal xeex bi xoolal xeex. il a trop dépensé. on s'est bagarré commandant. et puis jël ñaari épée. Tapha a été résistant. Oh. après delluwul ginnaaw. ah oui daanu na. bi mu ko jëlee Tapha dafa dellu ginnaaw. ah oui daanu mbaar ko. tuufaat ko. mbër feeñati na bawol daan na ko daan na bawol. daan na ko mbër feeñati na na bawol. qui arrêtera Tapha Tine. je donne ma langue au chat. la marche de Tapha la couronne. vers la couronne. ñoom ñëpp am na ça ñoom ñëpp am nañ problème. il a saigné. ñoom ñëpp am nañ problème. il a